اللهم بأسمائك البهية والشعاعات العرشية والكلمات الربانية والطلاسيم العبرانية والأقسام الملكوتية والأسرار السريانية وتسابيح اليونانية إلهي برفيع السماء وقوة الأرض وهيبة الشمس وبسر الأعظم الذي بين الظلمة والنور yaa man kasa qulubu alaarifina min nuuri aluluhiya wa yaa man arsala riyaha nushran bayna yaday rahmati ilahi salli ala sayidina muhammad salaatan taftah lana biha abwaab alrida ilahi waltaysir wa tugliqu anna biha abwaab alcharri waltacsir wa taqdi lana biha jamica alxawaaij wa takuna lana biha waliyan fi dunia wal axira anta waliyuna fa nimal mawla wa nimal nasir أيها المشاهدون الكرام في داخل السنغال وفي خارج الوطن نرحب بكم كالعادة في كل يوم الجمعة ونقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم ها نحن اليوم في انتظاركم بدقة وسرور وبعد naqulu lakum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di ziare ci àjjuma ji fu waay mën a ne di ziare kilifa diine ak kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura di ziare ñi ci hôpitaux yi te wéradi yàlla delloo seen sago euh, di leen ndokkeel ci ashura bu tedd bi nga xam ne moom la ñu jub fas yéene ko célébrer ànd ci ak jullit yëpp. waaye di dellu di jaale askanu Sénégal ci ki nga xam ne moom la ñuy ñàkk te jàmbaar ju mag mujahid kabir fi diinillahi jahada fi diinillahi wa badala juhdahu kulla aljuhdi li iqamati diinillahi alxanifi ala kulli xaal ñi leen koy jaale muy Abdul Aziz al Amin allazi raxala ila jiwaari rabbihi ñuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla teeru ci jannatal firdaws waaye it yàll na alquran nekk wéttalam fa mu jëm nga xam ne addunaam yëpp daf ko jox doomu aadama yi bëggul dara lu dul lu askan wi bëgg waaye soxlawul dara lu dul li askan wi soxla jël yitteem waxtoom euh, yëpp jagleel ko doomu aadama yi soxlaay doomu aadama moo ko gënaloon foofu ay soxlaam kon ku noonu bu fi génne àdduna ñu nit war nañoo jël sunuy kurus ñaanal ko yàlla yàlla teeru ko ci àjjana yi gën a kawe kon mbokk yi yàlla ko yàlla xare aljanna ñi di ko jaale umma islamique bi yëpp waaye di ja di ko jaare famille Haaji Malick si yëpp waaye waala kulli xaal di ko jaale waa Sénégal yëpp ak gouvernement bi ñëpp ñu ngi leen koy jaale di leen ko massaw di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare ci àjjana ya gën a kawe ci àjjanaam yi kon mbokk yi ñu ngi dellu si ak yéen di leen fàttali ngeen bàyyi xel ni euh, lu gàtt lu ñuy joxe rek muy lu am solo ci Ashura ngeen fas yéene def ci guddi gi ndax lu day ni Ashura jullit war ko am di tëdd di nelaw kon bu ñëwee nañ ci jaamu yàlla nañ ci ñaan ndax addu'a u silaaxul mu'min ñaan mooy ngannaay jullit ñi def fukki rakk ak ñaar rakka bu nekk mbokk mi nga def benn fatiha ak benn wadduha wa leyli soo paree nga def istighfar téeméer salaatu ala nabi téeméer soo paree nga wér di wadduha wa leyli juróom benn fukki yoon ak juróom benn boo ko defee incha allah ay tam xarit yu bëri ñu fi fekk ci mbaaxu yàlla ay tam yu bari nañu fekk mbokk yi ñu bàyyi ci xel eh, eh, yóbbal baa ngi noonu ñu bàyyi ci xel jël gi ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa rahmatullah sëñ bi ñu ngi lay ziar baax a baax di siyaare ci weer yi ñu dugg di weeru tamxarit mm-hmm. yàlla ginnaaw naa itam dafa am ñaari gént ñu ma bëggoon a leer yu gaaw mm-hmm. mais bu njëkk bi mooy dama gént daal ànd ak benn waay ñu jiital benn nag ñu nag huit quoi mm-hmm. benn nag ko takk ci benn buum mm-hmm. nag bi mu ngi dox di dox ba mu yàgg rek mu jékki-jékki buum bi moo ko jékk tey mu daanoo ni mu daanoo noonu la ci def ay manière ba mu yàgg rek mu daanoo ñu ne et eh, nag ci benn xam léegi nag ni ma dem di xool noonu ndax nag bi dafa dee beewul ma gis foofu benn groupe gaynde quoi gaynde ma ne ëpp eh, lii de ay gaynde la xaaral ma jël sama appareil photo sama sama téléphone ma photo leen mais bougé wul nag xam mm-hmm. après nag ni ma demee noonu doon jël sama téléphone doon leen photo rek foofu laa yeewoo daal ay gaynde quoi am mm. groupe gaynde waaw deuxième gént bi mooy dama gént ma taxaw ci benn immeuble néeg bu gudd benn ma taxaw ma tudd yàlla ma ne laa ilaha laa am ñu nekk ci biir am ku tontu ne ah kooku rek xam naa dafa bëgg a yéeg rek dañ ko bàyyi xam nga mm-hmm. léegi man ma jékki-jékki rek ma mel ne ma naaw quoi comme ni fiise yi du comme naaw picc yi mais comme ni fiise yi def jékki-jékki rek jóg kooku loolu li ma koy def bari na comme fiise yi ni ñu jóge noonu après mm-hmm. Mm-hmm. léegi ma dem nag ba dem attitude boo xam ne daal man sax def ma jaaxal daal ma tiim immeuble bi may xalaat nan laay wàcc ba mu yàgg nag ma daal di wàccaat ci suuf li ma wàccee am ñu may laaj naan ne yow nee na dangaa teg immeuble bi ko daal ma ne leen waa ah man teg naa ko lii moom yomb na da ngay. Hmm. boo yëgee ci asamaan bi da ngay mel ne lu bës sa tànk rek muy appuyé di dem ci kaw quoi. Hmm. affaire bi yomb ci man daal parce que man loolu li ma ko li bu arrivé dafa bëri daal. Hmm. léegi nag mu bëggoon a xam loolu lan lay tekki ak bu dee dafa laaj ay sarax ak bu dee lu ma war a defal yooyu yépp ci même guddi bi laa bëggoon. Mm-hmm. waaw léegi ñu ngi lay sant di la gërëm wax dëgg yàlla. jërëjëf. shukran sanaati bi zalika xaalan incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziyaara. ma doon ziyaara. alhamdulilah. alhamdulilah. bisimilah. waaw dama doon bëgg. gént mu bëggoon fii nii sama gént gént. Mm-hmm. waaw dama géntoon sama néeg bi dëkk bi daf tàkk. sa néeg tàkk. waaw beneen bi. seen tool yi daal sama soxna. Mm-hmm. dama ko doon liggéey beneen bi dama ko doon dama ko doon liggéey beneen buur quoi maanaam dama ko bokkaloon ak beneen buur. dégg mu baax. ma ni sama sama soxna. sa. sama soxna. Mm-hmm. sëy moom ci biir kër sama biir kër maanaam muy wujjee ma koy wujjee ba waa ji waa jooju mm-hmm. waaw léegi loolu xaw ma nag lin quoi may laajte loolu daal ñu ko dana ci ñëw léegi incha allah euh, ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo allo allo waaw waaw góor gi may soxla numéro bi waaw ñu bul coupé léegi ñu jox la numéro bi incha allah euh, te ligne bi dina am ku la jox numéro bi léegi xaalan incha allah ma zilna nahnu fi intidarikum bi hadayn raqmayn xaalan xaysuma ittasaltum bina sa tajidunana xaadiran kal aada fi kulli yawm aljumaa ñu jël ki ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum waaleykum salaam waaw sëñ bi ñu ngi lay ziyaara sëñ bi na nga def alhamdulilah alhamdulilah waaw man damaa amoon benn gént bu ma bëggoon laaj. Mhm. waaw ah xale bu jigéen may waaj jël soxna damaa gént mu toog si puus puus day nekk handicapé daal loolu laa bëggoon xam ne lay fekk. mu nekk ci puus puus. waaw mu nekk ci puus puus comme si tànk yi baaxul daal comme ku handicapé. Mhm. waaw. Mhm. waaw loolu moo doon laaj bi daal. dinañ ci ñëw léegi incha allah. waaw kay jërëjëf. jërëjëf. 88 628 04 05 wala 88 628 65 65. salaamaaleykum wa rahmatullah. waa dina àndaat ak ñun naxnu fi intidaarikum xata al aan eh, bi haadayn arrahmayni xaalan incha allah iza tasaltum bina 88 628 04 05. ngeen mën a ànd ak ñun ci numéro yooyu xaalan incha allah ñu di leen xaar ci yooyu la numéro euh, di ziara ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel saa su ci waxtu wi di ndokkeel ñëpp ci euh, am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah allo waaw xam naa dina àndaat am na keneen ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. wa salaam wa waaw tax bi ñu gént. waaw. dawaa géntoon. Hmm. sama doom. sama hmm. sama doom. Hmm. mu dafa gaaju. sama doom. dafa gaaju. loolu rek ma gént bay julli man. bi ba ma teg benn boor ci sama boor ba def ci wéccet bu sew ay xaalis ñaar ko kay loolu ndax du sew. waaw dina àndaat ak ñun ci kanam tuuti àggale li ci des ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo allo. salaam. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar waaw. ñu ngi leen nangu ziar alhamdulilah. alhamdulilah naka waa kër gi. ñëpp a fi sant bu baax. waa bisimilah. man dama am jënd benn xaj. Mm-hmm. xaj bi ma dàq daal ba ma ma tiit nag ba daanu ma ma daal. Mm-hmm. waaw bi ma yuuxu nag ci laa yeewu. dafa la matt. mat matt ma matt ma. Mm-hmm. waaw dama daanu bi daal après ci laa yuuxu ma yeewu. waaye waaye song la. déedéet songu ma la. waaw bu mag la nag xaj bu bu bu mag a mag. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. shukran ma zilna nashkurukum gaayata shukri li husni mutabaatikum maana assalaamu aleykum allo allo waaw bismillah damaa bëggoon dugg ci biir waaw bismillah ñu ngi yaa ngi ci biir ñu ngi lay déglu waaw dafa am gént bi ma géntoon laa bëggoon laaj bismillah damaa géntoon waa service de contrôle ñu ñëw sama bitig. Mm-hmm. léegi bu ñu ñëwee sama bitig bi ma xëyee tey suba ñu ñëw sama bitig la. waaw mm-hmm. tamit keroog tamit damaa gënt. Mm-hmm. Euh, ma gënt gis euh, sëriñ bu toog ci ci waawam. waaw kooku laa gënt ma dem ci moom di ko di ko ñaan ay di di ko ñaan wala. allo. waaw. allo. waaw ñu ngi lay déglu. waaw. waaw ñu jël keneen kii ci topp salaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam. waaw soxna si ñu lay ziara. delloo ziar. alhamdulilah bisimilah. ki may ki may génnal moo amoon gént bu mu géntoon bu ko léegi nag mu bëggoon ko ci leer ku ko leeral ci gént bi. léegi mm-hmm. nee dafa ñëwoon sama mariage fekk man maa la marié wu. Mm-hmm. léegi ba ñëwee nee na sama jëkkër gis ko rek mu foog ne daf may jël daf may sàcc quoi yóbbu ma. Mm-hmm. léegi nee na sama jëkkër ki ma doon ki ma doon marié moom xamul kal la nee na sama jëkkër jooju nag di ko di xeex moom ku góor gi. nee na muy xeex ak moom après mu sëlam ko ba pare di jooy ne ko moo ko mën. Mm-hmm. waaw léegi nag nee na ko jaaxaloon. Mm-hmm. dinañ si léegi incha allah ñu jël keneen ki ci topp salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. waaw bisimilah. waaleykum. sant ñu ngi lay déglu. PRF maa ngi yaakaar damaa jot ci kii fay kii faj kii bi bindi eh, du foofu nahnu fi intidaarikum kal aada bi diqqatin wa sururin xaysuma ittasaltum bina 88 628 04 05 ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum allo allo waaw xam naa dina àndaat ak ñun ñu ngi leen di bàyyi xel keneen ki ci topp salaamaaleykum allo. yàlla yàlla nangu ziar. alhamdulilah. alhamdulilah. waa euh, waaw. waaw bul coupé léegi ñu jox la ko incha allah. Ah, waaw incha allah waaw. d' accord. jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf jërëjëf ma zilna xata al aana fi intidaarikum kal aada bi diqatin wa sururin ida tasaltum bina xaalan inchaa allah 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 ngeen mën naa la gim ci numéro yi xaalan inchaa allah Euh, ñi leen di bàyyi xel ci ligne bi xam naa xat-xatu bi bari rek waaye euh, mën nañ ko topp ànd ak ñun incha ki ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. salaamaaleykum waaw salaam wa rahmatullah. na ngeen def. sant yàlla alhamdulilah. dama doon Euh, dama jaan jaan bu ndaw. Mm-hmm. waaw mais màttu ma nag. Mm-hmm. waaw benn jaan daal laay géntoo. Mm-hmm. léegi euh, boobu mooy gént mu njëkk bi. waaw beneen bi ci toog dama gént dem euh, suñu kër gi ñu njëkkoon a dëkk. gis gis kër gi daal mu soppeeku lool lool nekk benn étage bu rëy. loolu nag doon lu ma lu ma lu ma jaaxaloon. Mm-hmm. mu ne waaw mu ne woon naa koo na naa ko laajte foofu suñu kër gi ñu njëkkoon a dëkk la. Mm-hmm. waaw fa lañ fa ñu toxu fa. Mm-hmm. waaw boobu moom mooy euh, mooy ñaareelu gént bi. waaw waaw li may dellu si daal li may gént jaan daal waaye nag du du euh, doon jaan may mat. waaw waaw. loolu daal moom laa bëggoon euh, laajte. ñu leeralal ma ko. baax na. waaw. dinañ ci ñëw léegi incha allah. jërëjëf shukran ñi jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. allo. allo. waaleykum salaam. waaw soxna si ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. bisimilah. firi gént la. waaw. waaw. Mhm. man de dama am lu ma sama doom bu mu géntoon. Mhm. waaw nee na dafa géntoon daal benn xaritam. dëpp mm-hmm. nii daal ci balcon. tiim mm-hmm. benn nee na moo xaritam ñu gis benn jaan jaan bu mag nee na après xarit bi daal di tudd yàlla. Mm-hmm. laa ilaaha illallah mu ne ko lan la mu ne ko xoolal jaan bi après xarit bi wàcc nag di xeex jaan bi ba lakk ko. waaw foofu daal la yeewoo loolu nag jaaxal ko man ma naa ko laajal. waaw beneen bi moom man la man maa gént keesu mbalit ma koy diri nii di yóbbu. Ah, après foofu nag laa yeewoo ma bëggoon xam ñaari gént sa xarit sa xaritu doom bi moo doon xeex ak jaan bi sama xaritu doom bi moom ci boppam moo gis jaan bi ñoom ñaar ñoo sëpp nii mm-hmm. gis jaan bi nag sa xaritam bi moo gis jaan bi mm-hmm. daal di tudd yàlla mm-hmm. waaw moo doon xeex ak moom baax na yow këpp keesu mbalit waaw man dama gént yore keesu mbalit di ko diri nii di ko yóbbu kees moom ay mbalit a nekk ci biir ma koy diri di ko yóbbu waaw foofu laa yeewoo moom mais sama doom moom xaritam bi moo gis jaan bi wàcc di xeex ak moom nag ba lakk ko nee loolu jaaxal ko torop waaw dinañ ci ñëw léegi. waaw incha allah waaw. wa ala kulli xaal jërëjëf dinañ ci ñëw léegi incha allah. ñu jël keneen ki topp ci kooku ñu jël ko moom salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo allo allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaleykum salaam wa rahmatulah. alhamdulilah waaw bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatulah maa maa ngi leen rafetlu émission bi ci leen ziar. yàlla mm-hmm, yàlla na ko ziar. léegi dama am gént bi moom moo doon a gént. gént mm-hmm. bi mooy dama gént ay butti xànjar yu bëri xaaj butti xànjar xaw ma lan la nag. Mm-hmm. butti xànjar ay butti xànjar daal laa géntoon lu bëri. gutt. waaw ay butti xànjar. waaw. waaw ay ay. waaw waaw tey jii dafa am gerte. moom daal beneen jant bi. Mm-hmm. léegi damaa mën ko jënd te jàpp rabo yi wax cëbeer borom dugub cëbeer. ngëb mm-hmm. naa ko moom jàpp naa ko moom si tànk ci doon jàpp ko moom waaw jàpp borom dugub baax naa njëkk. borom borom waaw. picc waaw picc waaw rabo ñuy wax cëbeer. Mhm. waaw. waaw. waaw. waaw. waaw. waaw. Mhm. baax na dinañ ci dinañ ci ñëw ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. yal na nangu ziyaar alhamdulilah. waaw man de dama amoon benn gént moom rek. gént mm-hmm. euh, man la ko nekk mm-hmm. euh, dawal nag saamaan. Mm-hmm. mu mu ne daal ku nekk ci mission bitim yooyu. dégg mu baax. donc après euh, ma ne. Mm. maa gént nekk nekk bitim réew. waaw nekk bitim réew. waaw di dawal nag ci oto yi mel ni oto mission bi daal. waaw. donc euh, ma dawal nag ba taxaw ba gaare. mais mhm. ci diggante boobu nag ci laa ci laa yeewoo daal. nga gént di oto. dawal oto oto comme mel ni mission yi rek mission bitim réew rek. waaw waaw waaw. ma nekk oto yooyu nag di ci dawal yor ci mhm. ci dem dawal ko nag ba gaare ko fenn. Mhm. après nag mu wàcc. man boobu loolu daal laa bëggoon man ci ma def. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. شكرا وعلى كل حال ما زلنا في انتظاركم كالعادة بهذين الرقمين حيثما اتصلتم بنا حالا إن شاء الله ñi ñëw ci bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fii seeni borom di ko laaj bëgg ñu indi ci ay bayaanaat Euh, bi ci jëkk mbokk mi ne dafay laaj laaj bu ko jaaxal mu bëgg ñu indi ci ay leeral beneen bu jëkk bi moom nee na dafa gént nag boo xam ne bi dañ ko takk ci buum mu mel ni dafa jékki-jékki daanu waaye nee bi mu ñëwee li ko daanee nag mooy buum bi moo ko fakka sal mu daanu mu ñëw di xool nu nag bi daanoo fekk fa ay gaynde euh, albaqaratu wal asadu fil xulmi amrayni muxtalifayni fil xulmi ñaari mbir a ngi nii bokkuñu jëmukaay muy gaynde ak nag gaynde nag ci gént moo gën nag fuuf ndax albaxaratu fil xulmi tu addi ila suubatin amma al asadu fatxun wa rizqun wa yusrun ala kulli xaal bu de gaynde nag baax na xéewal la waaye li baaxul mooy lan li baaxul mooy a taxayur al baqaratu taxayarat asadan li baaxul mooy nag wi nga xam dafa soppaliku nekk gaynde baaxul taxayur boobu soppaliku boobu moo gënul ci gént gi waaye gaynde daal moo gën nag ala kulli xaal euh, beneen bi nee na mbokk mi ne dafa gént yëg taxaw fu kawe nee na mu tudd yàlla mu mel ni day naaw ci jaww ji mel ni day naaw jëm ci kaw nee na naaw na ba toll ci kaw fu sori foo xam ne fii dafa ko xaw a yéem tuuti zikrullahi fi lxulmi wa man raa nafsahu ala cheyin aalin ka tabaqatin aaliyatin fa dalika xayrun wa dalika taqaddumun wa najaax wa fatxun kabir fi xayaatil insaan gént nekk fu kawe yokkute la wërsëg la ubbeeku la ala kulli xaal amma nag mbokk mi nga gént nekk fu kawe ba pare wa anta tadkuru tadkuru ismallahi ngay tudd tur yàlla lu mel ni laa ilaha illa allah aw ma yasbihu dalik eh, loolu moom xéewal la ala kulli xaal beneen bi ci tegu nee na raa annahu kaana yatiru fi l jawwi biduni ajnihatin ay kaana kaana yatiru kama yuridu fi ljawi wa laysa lahu ajniha li yatira ala dalik gis nga mbokk mi ne dafa gént di naaw ci jaww ji te amul ay laaf yu muy naawee day naaw noonu rek di dem euh, gudd fan la waxoon nañ ko miraaran wa sanukarriruhu ala kulli xaal gént di naaw gudd fan la ñu bàyyi ci xel lu am solo la beneen bi ci tegu mbokk mi neen dafa gént ci biir néegam boo xam ne dafa jékki-jékki lakk nee na mu lakkee mooy bu jëkk bi ah, néeg bu lakk ak bitig bu lakk kilaahuma ala xaddi sawaay al baytu ida xariqa dalika xayrun wa dukaan kadalik néeg bu lakk yiw la xéewal bu waaji ñëw ci yow la bu bari bu am solo wa kazalika su dee bitig it noonu la tëdd xéewal bu ñëw la ñu bàyyi ci xel euh, beneen bi ci tegu mbokk mi neen dafa gént euh, soxnaam di amlante ak keneen di sëy ak keneen mu jaaxal ko loolu dafay dikkal góor di dikkal jigéen góor day tëdd bu guddi gént soxnaam di ànd ak keneen jàppal ni soxna si dafa am farorab fararab bi mooy manifester noonu mooy dikke noonu ci gént ñu bàyyi ci xel jigéen dina tëdd ba guddi gént borom këram di ànd ak keneen ku jigéen muy mbiri àndandoo nu muy amee ci góor noonu lay amee ci jigéen ala kulli xaal ñu bàyyi ci xel muy lu jara bàyyi xel euh, mbiri fararab waxoon nañ ko fi nag ne leen baax na ngeen di jëfandikoo wa wasamaayoo taarix baax na ngeen di jëfandikoo it wa ala xaal wali suleymaana riixa guduwwaha shahrun wa rawaaxuha shahr wa asalna lahu ayna alqitri wa min aljinni man yacmal bayna yadayhi bi idni rabbih wa man yadiq minhum an amrina nudiqhu min cadaabi saciir yacmaluun lahu maa yashaa min maxaariba wa tamaasiil wa jifaanin kaljawaab wa quduurin raasiyaatin yacmalu aala daawud shukran wa qalil min cibaadiya shakuur gis nga aaya la bu baax lool ci mbir yooyu di ko jàng guddi gu nekk eh, ihda achara marra fukki yoon ak benn balaa ngay tëdd dafay am solo lool eh, beneen bi mbokk mi ne dafa gént eh, ki nga xam ne ki moom lay bëgg pour jël ko soxna mu nekk handicap mu nekk handicapé ba pare toog ci fauteuil yi fauteuil yi yooyu ñi poussaate nee mu gént mu toog ci mu jaaxal ko lool eh, jigéen soo ko bëggee takk nga fekk ci moom yi ñuy bëgg a wax nga bàyyi ci xel nga fekk ko ci chaise roulante boo xam ne bii dañ ko ci puus wala ñeneen la mënul dox ay tànkam dafa baaxul wala ñeneen la daa am ay picc yu bari ci yaramam walla boog ñu ne la daa am gaañu gaañu ci yaramam gis nga yii ñi lim yëpp benn bés bu nekk soo ko gisee ci jigéen jàppal ni jigéen ju baax la ju bari wërsëg ju am ko lu ko yàlla dencal ci avenir muy muy lu am solo lool ci diggante ku yor puus-puus ñi ne la handicapé la baax na su dee ko xam ni kii yaram bi daa bari picc baax na soo ñëwee fekk ci yaram gaañu gaañu it baax na tatagayaru alxusnu alamiq wa diqu shadid faraxan wa surur wa kazalika yatagayaru almaradu xayran wa nicma gis nga xat-xat yooyu noonu lay soppaliko nekk yiwu am solo nekk lu baax ci ki nga xam ni kii moom ngay bëgg a denc te soo ko dencee doo ko rëccu li nga xam ni wa ala kulli xaal ko yàlla cërale muy la am solo lool euh, beneen bi mbokk mi ne dafa génte euh, benn xaj bu mel ni ko topp xaj daal mahma jara al amru ma fil kalbi xayrun xaj baaxul su la toppee baaxul su la màttee baaxul soo ànd moom guddi baaxul donte màttu la sax maa filkal bi xayrun du lu gën kii nag nee dafa gis waa service d'hygiène ñi ñëw ci bitigam mel ni ku koy contrôler mooy bu njëkk bi gént ñi di la du contrôler day am lu nekk ci yow loo xam ne dangay ngay jékki-jékki jëmmi jamono mu nekkoon sa loxo ba jëmmi jamono yàlla génnewaat ko sa loxo tekkiwul ne nag niñ ko gisee noonu noonu lay tëddee beneen bi nee na raa alxalifatu al aam li taifati tijaniyati muy sëriñ mbay si ru'yatu al awliyaai wa saalihin qulna dalika miraaran man raa waliyan aw saalihan min alsaalihin aw waliyan min al awliyaai fa dalika xayrun wa taqaddumun wa yusrun wa fatxun ala kulli xaal gis nitu yàlla bu sell ci gént xéewal la yiw la lu am solo beneen bi mbokk mi ne dafa gént ki muy bëgganteel nee mu gis ko mu ñëw ci eh, mariage biñ koy marié fiñ koy mat takkee maanaam ci bésu takkam la ñëw nee na ku koy takk jaaxle ci yaakaar ni dafa ñëw pour jël ko daw ak moom euh, benn azawaaj fil xolmi gént di sëy baaxul gént ñi lay takk baaxul gént nga nekk ci mariage baaxul gént ki lay bëgg keneen ñëw fekk fa ko fa baaxul yi ñu lim benn baaxul ci kon ñu bàyyi ci xel muy lu day waar waaye du lu gën ndax day tax koo seqanteel wala koo jokkalante ay kàddu commencement bi day neex waaye mujj bi day bari jafe-jafe lool beneen bi mbokk mi ne dafa génte jaan ju ndaw bari na lu mu koy gént nee na assobaan wa fi sobaani nawayni muxtalifayni assobaanu sagir wa sobaanu kabir wa hunaalika aydan ixtilaaf fi l alwaan law lawnul abyad lawnul asfar lawnul eh, ahmar aw maa yusbihu dalik jaan daal dafa am ay tekkal yu ñuy séparé ci jaan jaan bu ndaw njaboot la su magee ba ëpp dépassé dimension jaan normal seytaane la yi ci baaxul muy couleur yi benn baaxu ci benn rek mu baax ci couleur yi muy bu weex jaune noir rouge yooyu yëpp gënu ci nañ ci bàyyi xel waaye daal bu dee bu weex bi baax na waaye daal jaan ju ndaw moo gën bu mag ñu bàyyi ci xel euh, beneen bi mbokk mi ne dafa gént seen kër boo xam ne bi ñoom ñoo ko moom muy seen kër bu jëkk boo xam ne bi ala kulli xaal kër seen kër bu jëkk ba la mu mel ni dafa jékki-jékki beesaat mel neneen baaxul aljamaalu maa fil jamaali xayrun sawaan fi daar sawaan fi lbayt sawaan fi lmakaan sawaan fi dukaan sawaan fi mahal maa fil jamaali xayrun lu rafet lu nekk baaxul boo amee kër nga gént ñu defar ko ba baax gënul soo amee gisee nit mu solu ba rafet baaxul yooyu benn gënu ci ñu bàyyi ci xel euh, beneen bi mbokk mi neen dafa gént doomu xaritam wala xaritu doomu moo gént jaan bu mag nee na mu jël xarit bi xarit bi ñëw xeex ak jaan ji ba lakk ko loolu mbiri seytaane la baaxul nañ ci bàyyi xel xeex ak jaan làkk ko mbiri seytaane la na ci bàyyi xel waaye bu ñuy tëdd daal nañ def ay léemaay bi ci gën nag wax nañ ko muy wa samaay wa taarix ayatul kursi yi laqad jaakum wa samaay wa taarix ayatul kursi yi laqad jaakum fu waay mën a nekk walaw kunta fi xaabatin mamluatin bil xayawaan faqra wa samaay wa Euh, waa ayatul kursi wala xat jaakum boo nekkoon ci àll boo xam ne bi ay rabu àll kese ñoo la wër sax nga bëgg cee mucc jàngal wa samaay wa taarix ayatul kursi laqad jaakum asallahu an yabasa alayka maqaama mahmud ala ala kulli xaal muy lu am solo lool euh, beneen bi ci tegu mbokk mi nee dafa génte nee na mu mel ni dafay mu mel ni day daw euh, dinañ ci ñëw léegi ci laaj boobu mu laaj kii nag ne dafa yor lu mel ni but boo xam ne bii ay xànjar ñoo ci nekk xànjar or lépp lu xonq tey briller ci gént baaxul su dee xaalis daal moo gën or gën xànjar nañ ci bàyyi xel Euh, muy lu jar a bàyyi xel beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gént euh, jàpp picc boo xam ne dañ koy tuddee cokkeer gént jàpp picc bu ñuy tuddee cokkeer baaxul am na façon picc yoo xam ne yi ci gént baaxul am na yu baax am na yu baaxul wa kazalika rabu àll yi am na yu ci baax am na yu ci baaxul wa mbokk mi euh, ndox suuf yi sax dafa am yu ci baax ak yu ci baaxul nañ ci bàyyi xel Euh, ci buñ ko dee di gis beneen bi ci tegu mbokk mi neen def nee na gént gis boppam bitim réew mu mel ni day dawal oto nee na mu ngi koy dawal ba mu jóg oto bi mu mel ni moo taxawal boppam wala dafa taxaw gis nga dawal oto qiyaadatu sayyaaratin inda rajuli euh, yu addi ila soo ittafaahum bayna rajulin wa imraatin góor buy dawal oto day indi ñàkk déggoo diggante moom ak ku jigéen allahu aalam mën na nekk sa soxna mën na nekk leneen waaye daal ni ñu bàyyi ci xel euh, muy lu jara bàyyi xel lool ci loolu ñu tudd léegi euh, beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafay laaj moom it dafa gént Euh, mu mel ni dafa nekk ci bërëbu footballukaay ak moromam ñuy football nee ci football bi ci la gisee ne daal gaañ nañ ko ba deret bi di génn mu ilaaj ma bayaanu zalik gént di football mushkila min al mashakil wa suubat adida la tuaddu wala tuxsa xat-xat yi gën a tar football ci la bokk rawaate na bu deret génne ñi gaañ la du lu gën nañu bàyyi ci xel waaye du te ñu ànd ak askan wi ànd ak xarit yi ak mbokk yi ñu nga xam ne ñi ñu ngi taataan ci ligne bi wa ala kulli xaal bëgg ñu ubbi leen ko ñoom it di mën a dugg eh, indi seeni laaj muy vingt 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 muy ñaari numéro yi nga xam ne yi ala xaal ida tasaltum bina xaalan sa tajidunana xaadiran kalaada fi kulli yawmil jumaa saa yu ngeen ñu wooyee léegi ci numéro yi di ngeen ñu jot euh, muy 00 221 33 841 22 99 ala kulli xaal ngeen mën a ñun ci yooyu le numéro mbokk yi su ko defee ñu leen di bàyyi xel waaye du tey ñu dellu si ci bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fi seeni borom di ko laaj euh, kii nag Euh, biñ ci mujjee jottali rek mooy bi nga xam ne bii mbokk mi wax na ko léegi neen dafa génte dóor doomam dóor yu metti muy laaj maa bayaanu zaalik loolu na waxoon nañ ko fi nee naa leen gént dóor sa doom moom euh, xéwal la ndax doom lay doon joo xam ne ji euh, ci dundam mooy yori kër gi mooy yari njaboot gi mooy yori waay juram ndax yàlla dina ko ubbil bunti xéwal yu yaatu mooy alwalid alladi daraba ibnahu aw alwalida allati darabat ibnaha kon mbokk mi ñu bàyyi ci xel di jéggalu xat-xataay waxtu wi lool ndax euh, bu ñu sañoon ñu ànd ak yéen ci kanam waaye waxtu wi moo xaw a euh, xat ñuy ziyaara ki ñu jëkk ziyaaran tey ku ñu bàyyi xel la di sunu kóllëre di ku baax koo xam ne kii wa ala kulli ñëpp xam nañ ko muy Alaaji Maawo Siise nga xam ne moom wa ala kulli xaal mi ngi càmmoñ mi ngi ndeyjoor mi ngi fépp xaaji Maama Cissé ñu ngi koy bu baax euh, di ko ndokkeel ci aj gi di ko ndokkeel ci weeru tam xarit bi waaye di ziyaaraat sunu xarit sunu kolëre euh, ku baax Adja Soxna Ba di ziyaar ajaa Mati Ba di ziyaar Malick Ba Ndiku Fall Adama Ndiaye Mansour Sarr maam lii soon fàtte wuñ leen Eh, di ziara Cheikhna Soumaré nday Ba nday faatu Soumaré Idrissa Mam Seni ak Jibi ñoom ñëpp fàttewuñu leen Bachir Ba ci Mauritanie ñu ngi koy ziara ak Thiané Diagne soxnaam Kémo Jaxabi Alaaji Jaxabi Mouhamadou Mbay Medina Mbay mu jibu lay commissaire Modou Ndiaye commissaire ñoom ñëpp fàttewuñu leen Maxatal docteur Pouy Ami Touré soxnaam ñu ngi koy ziara Abdourahmane Mbacké Fatima Tall ñu ngi koy ziara bu baax amadu Sow ci Italie ay Elisabeth Sagna ak monsieur Sagna di ziara Bintu Ñang Aja Astugay ci Mboor Awa Jaw Abbas Gajaga ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara Fatou Kiné Yade ñu ngi koy ziara bu baax di ziara Mouhamadou Moustapha Yaali ak soxnaam Nafisatu di ziara it ba tey Raqiyatu Diop ca Yoff Ndangaañ Roqeetu Diop ca Yoff Ndangaañ ñoo ngi koy ziar bu baax Daawuda Jaay ci HLM ak doomam Xali ñu ngi leen ziar Omar Konaté Pape Gallo Badiane sunu xarit Mouhamadou Ndour Moustapha Awa ca hôpitalu Géej ñu ngi koy ziar bu baax moom Awa eh, di ziar Omar Ñang Magu Ñang Ngoone Kebe Soxna Seen fàttewuñu Mariatu ngoom ñoom ñu fàttewuñ leen Euh, Marème Gueye ñoom ñëpp ca Cité Gabon fàttewuñu leen Madiagne Gueye Khadim ca Norvège Adja Soxna Mati Diaw ñu ngi koy ziara ci Cité DPV Sali Sané ñoom ñëpp fa Kasoor ñu ngi lay ziara ala kulli xaal di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura di ñaan sunu Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla tàppe xol yi ñu ànd nekk benn jàppalante dimbalante li wajhillaahil kariim allahumma rabbi yaa laa yantahi ilayka basaru naadirin fi majdi jabarutika ya ilahi irtafaat an sifati almaxluqin sifatu qudratika ya rab wa ala an zikri zakirina kibriya wa azamatika ya ilahi fala yantaqis ma aradta an yazdaad ya ilahi wala yazdaadu ya ilahi ma aradta an yantaqis la ahada ya rab shahidaka xiina fatarta alxalq wala nidda wala didda xadaraka ya ilahi xiina barrata nufus kallatil alsunu an tafsiri sifatik ya rab wa nxasaratil aqul an kunhi maarifatik fa kayfa yusaf kun hasifatik ya rab allahuma rabbi xaqiq li amali wa tammim li niyyati waqdi xawaaiji zahiran wa batinan ya rab innaka ala kulli cheyin qadir wala tugayib ilahi rajai wa rajaana wa rajaahu wa rajaa jami almuslimin allahuma rabbi la tugayib rajai wa rajaana wa rajaahu wa rajaa jami almuslimin bi barakati sayidina wa nabiyina wa xabibika wa rasulika muhammad ibni abdillah wa salli alayhi salaatan taftah lana biha abwaaba rida ilahi wa taysir wa tugliqu anna biha abwaaba charri wa taasiri wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira ya rabbi ya rabbi ya ilahi anta waliyi wa waliyina wa waliyuhum fa nicma almawla wa nicma annasir